بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بوكي دلسوا نانو تي سوني اميسيون بالحكمه بيغن دي فارال دي تيوي توبا مجا تاينك نك نو فاسيني تبسكي اك اي بندو ينجي نجي مانا كون لي نوي جيكي موي ndokel julit ñep ci xew-xew bu mag bi tay ñaan itam yalla jappandalal julit ñep ku ci ne nam ko bëgg a mu defe ko ni tay itam mu nangul ñëpp te delloosi ko ay yoon yoon yoon yu ñuy fekke ci ak akuk tal waxtaan wi nak kon ci tabaski lay jëm ak bind yi nu ci mën a jële kon dananu fàttali jëmmi tabaski ci boppam lu ko waral bu nu ci jógee nag door a waxtaane bind yi nga xam ne war nañ ko cee jële bu nu bëggee fàttali li waral tabaski danu naan rek sunu maam Ibrahim mi nga xam ne mooy maami yonente yu bari ci yonente yi ba tax ñu koy tuddee baayu yonente yi wala maami yonente yi moom moomu la yàlla digaloon doomam ju mu amoon am ca yaakaar ba mu tàmbulee am njariñ yàlla digal ko nekkoon na ren di doom joojee sunu maam Ibrahima itam te doom ji mooy Ismaayil sunu maam Ibrahima daal dégg ndigal loole wax ko doom ji doom ji itam dégg ndigal la ànd ca ak moom ngir ñu jëfee li yàlla digle ba ñu àggee foofa nag ba waaj ngir sottal ndigal li ci la yàlla wàccee am xar ne ko na ko rendi te bàyyi doom ji mooy li ñu tuddee jotu moom la def ismail muy am xar loola nag doonoon ci bis bii bi lislaam ñëwee yonente bi digle bu dikkatee ku ko man ku ne mu rey ab gatt bu ko manee ak yeneen ya cay ànd ngir euh, mel ne ku ci topp sunna sunu maam ibrahim soo see kon loolu ci gàttal rek mooy li waral bis bi si yàllaa ngi wax ci alquran loolu mënees na caa dégge junjub loolu fi muy waxee ne Ibrahim dama ko nattu woon mu matal nattu ba ba mu matalee nattu ba nag moom mooy mu taxaw ca taxawiin wa ca gën wa ca jaadu ba mu ko defee nag yàlla daal di koy def kilifa wa id ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni jailuka linnasi imama kon da ko nattu mu doxee ca nattu ba nag na mu ca war a doxee ci la ko yàlla defee mu nekk jiit kon loolu mooy fàttali rek bis bi lan mooy cosaanam li nu ci war a def moom xamees na ko mooy julli gi ak rende gi julli ci ñaari rakka ci waxtu yor yor wala waxtu yi nga xamne ne rek naafila dagan na ci ci suba gi bu jant bi yëkkati ko ba naafila tàmbulee dagan fofu la waxtu julli tabaski di tàmbulee mën nek baba tusbar di jot ñaar rakka yun ci julli kon xames nako bu noppé itam ku am gat mu rendiko ko ngir yalla kon loolu mooy jëf jiñ ciy jëf li nu ëppal solo tey nag mooy bind yi nu ci mën a jànge bind yooyu bokk na ci xëy na moo ci jiitu sax euh, luñ ci mën a jànge li ci ëpp solo xëy na mooy wóolu wóolu yàlla te nangul ko déggal ko wóolu gi mooy jur nangul gi ak déggal gi loolu feeñ na ci li waraloon tabaski ndax ñi ko seqoon muy sunu maam Ibrahim ak doomam ja di Ismaayil ak ndeyi Ismaayil sax di Haajar ñoom ñett ñépp ku ci ne feeñal na wóolu gu mu wóolu yàlla ak nangul gu mu nangul yàlla ak bàyyi gu mu bàyyi mbiram ci loxol yàlla lii leeral loolu moo di ne Seydina Ibrahim dafa dund lu yàgg mook soxnaam samu amoon te yàlla mayu leen doom am na ñu wax ne demoon na ba jege téeméeri at te amul doom soxnaam soose ñu wax ne mooy Saara fekk amoon na ab jaam booba njaam xewoon na ab jaam buñ ko mayoon bu jigéen bu tudd Haajar ba mu nekkee Seydina Ibrahim diir bu yàgg boobu te amuñ bant mu ne kon na ko may jaamam bii mu denc ko ndax yàlla mu mën ci amee bant muy Haajar mu may ko jaam ba mu denc ko yàlla may ko ca Ismaayil may ko ko ba nopi nak mu don eh, dom ju yakaru dom ju yakaru la ndax du ko teel am xel gis nañ kon ku dem ba don mak dora am tak leer xam nañ lim wara war dom bëggee ak nim wara wekko ci mom nim wara wekke xelam ci mom ak xolam Dom ja nak doli ci don dom ju ragniku ku am xel ba mu demee ba tàmbulee dëgër loolu lépp kon yaakaaram mi ngi gën di dëgër ba doom ji demee ba tàmbulee dëgër ba tàmbulee am njariñ yàlla foofa la ko digale ne ko na nga di sa doom ji loolu nattu yaakaar naa du yomb nattu gën koo nattu gën koo diis ku dem ba toll ci at yu mel noonu doo di door a am doom doom ji doon doom ju ràññiku dem ba tàmbalee am njariñ ñu ne ko rendi ko loolu wóolu yàlla rek rek rek rek mooy tax nit mën a def ndigal loole nangul yàlla itam rek mooy tax nit ki nangoo def ndigal loolee loola nag dafa nekkoon ci Ibrahim moo tax mu nangu ndigal li fas fas yéene jëfi ndigal li waaye ba mu ko fasee yéene itam dajaa waxtaan ak doom ja doom ja it moom itam baayam demul mu des mooy ni baay bi wóoloo yàlla nangu la ni yàlla doom ji itam noonu la wóoloo yàlla noon la nangu la yàlla moo tax ba mu ko nee man kat dama gént te gis nga gént la ko dikkee mënoon na ko woyofal kon ne gént la rek waaye dana ko dama gént yàlla digal ma ma rendi la lu ci sa xalaat waxin woowu yëpp day mel na doom ji mënoon naa am bunt bunt buum ca génne ne ko gént la rek gént la rek waaye mu ne ko defal li la yàlla digal gént nga gént waaye ndigalul yàlla rek kon nag li la yàlla digal def ko danaa muñ danaa muñ bu soobee yàlla ñoom ñaar ku ne xam na ne it ndey ji te mooy saa mooy hajar ku ne xam na ne jamono yooyu moom bu fekkoon ne andu ca yëf du yombe non waaye kon bu yombee rek dañuy xam da caa ànd te dafa am ca lu ko jiitu lu nuy won ne moom it wóolu yàlla gi ak doyloo yàlla ak nangul ma nga ca ndax ba ko Seydina Ibrahim di yóbbu mook doom ji Ismaayil ca Makka di leen fa bàyyi te Ismaayil booba toll ci nàmp mu bàyyi leen fa ñoom ñaar rekk foo xam ne kenn dëkku fa ndox amu fa dara gàncax dara amu fa muy àll boo xam ne du àll sax bu nangu mbay mu bàyyi leen fa ñoom ñaar rekk kon jigéen ju ànd ak doomam juy nàmp ñu bàyyi leen ci àll bu mel noonu boobee dafa laaj Ibrahim ne ko waaw lii nga def nag ndax yàlla la ko digal waaye ba mu ne ko yàlla ma ko digal dana ko ah kon de yàlla du ñu sànk kon yàlla du ñu sànk waxam joojee kon ak jëfam joojee day wane ne moom it doyloo yàlla gii nekk ci Ibrahim nekk ci seen doom ji ma nga ca moom itam nangul yàlla gi itam ndax ba mu ne ko yàllaa ma ko digal rek tegu ca baat lu dul ne ko kon yàlla du nu sànk kon ñoom ñett ñëpp ku ci ne wane na taxawaay bu ma sëkk ci wóolu yàlla ak nangul yàlla loolu alquran da ko nettali nettali boo xam ne sax da ko tas tas goog néew na mu koy tase ay nettali yu muy nettali xew-xew yonente yi aleyhum salaatu wasalaam mi ngi wax ci Ibrahim di wane jamono doom jim ko mayoon ni mu yaakaaroo woon wane ne ba mu demee ba tàmbalee am njariñ ci la ko digal ndigal lii waaye teewul ñoom ñaar ñëpp ñu wane ak nangu ak wóolu yàlla ba fa siyeenee jëfi ndigal li fa basharnaahu bi xulaamin xaliim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كون موي دكو موي دوم جو أم خل جو يو yeewu ba mën a liggéey ànd ak moom liggéey mooy kon ba tàmbulee am njariñ foofu la ko yàlla e, digale ci gént ne ko ne ko rendi mu wax ko doom ji doom ji ne ko dafa liñ la digal bu soobe yàlla danaa ko muñ ba ñu demee nag ba bëgg a sottal ndigal loolu ba waaj ba jekk ba tër ko ba jël paaka bi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 bu leer nañ mooy natt bu mag la boo xam ne neexuta euh, féete kaw foofa nag la nekkoon ma jotu ko jotoo ko ab gàtt am xaaf lañuy wax mu mag ngir mu rendi ko kon loolu day wane ñoom ñett ñëpp seen wóolu yàlla ak seen nangul yàlla ak seen doyloo yàlla loolu kon man na na wax ne mooy bind bi ëpp solo te gëna a fés bu nu mën a jànge ci xew-xew bi nekkoon cosaanu tabaski beneen bind ngi nii itam bu nu ci mën a jànge te mooy fonk fonk doomu aadama fonk bakkanu doomu aadama gis nanu ne yàlla bi mu digalee bi mu diglee bi mu digalee Ibrahim mu rendi doom ji da ko jubloon a nattu rek da ko jubloon a nattu ngir tolluwaayu wóoloom yàlla ak nangulam yàlla tolluwaay bi feeñ tolluwaay bi la jubloon a feeñal moo tax mu digal ko mu rendi doom ji waaye ba mu demee ba wane ne àttan na koo def nangu na koo def ngir li ko yàlla digal la yàlla indi leneen lum rendi lu dul doom ca loolu day wone kon aar ak ñoŋal ak fonk gu yàlla fonk bakkanu doomu aadama ak dundu doomu aadama ba diglewut ñu koy rendi digle gi ngir nattu la woon rek ngir Ibrahim feeñal fan la ko yàlla toll fan la ko nangul yàlla toll fan la ko wóolu yàlla toll loolu nag tamay bind bii di wane fonk dundug doomu aadama ak bakkanam wares na ca jànge ci jamono jiinu toll jamono jiinu toll gën naa laaj nu jàngaat bind bii bu baax a baax jëfandikoo ko ci sunu ci sunu dund loolu li muy firi rek mooy kon lépp luy lor doomu aadama lépp luy moo xam da ko lor lor ju àggut ci jële fi ba kanam walla day lor ju àgg ci jële fi ba kanam lu ci ne rek lu ab jullit war a moytu la ndax dafa dàqonteeg wormaal doomu aadama ak aar dunduk doomu aadama gi nga xam ne dañ koy jànge ci xew-xew bii loolu liñ ciy dégg kon mooy nit ki daa war a doon nitug jàmm jullit bi daa war a doon nitug jàmm daa war a doon nitug jàmm ba lépp lu muy wax doon luy jur jàmm lépp lu muy def doon luy jur jàmm lépp lu muy yéene itam doon jàmm rekk kon ci wax ak ci jëf ak ci yéene ab jullit jàmmu rekk rek moo war a feeñ ci ñetti tolluwaay yooyu yépp loolu tax na ba yonente bi àgg ci wone ne doon nitug jàmm mooy tax nit ki ak ngëmam ak njuliteem mat ki nga xam ne du nitug jàmm kon ak njuliteem matul ki nga xam day lore ci waxam walla ci jëfam ak njulliteem doonu lu mat ku ne xam na xadiis bu boobu al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa jullit mooy ku jullit ñi mucc ciw làmmiñam mucc ci loxoom mucc ciw làmmiñam mooy rekk mucc ci waxam mooy du leen lor ci waxam mucc ci loxoom mooy mucc ci jëfam kon du wax luy lore du jëf luy lore nee na kooku mooy jullit loolu mooy ne kon ku melut noonu ak njullitam mun tamat waxaat feneen foo xam ne dafa giiñ waat ñetti yoon giiñ ne giiñ naa ci yàlla ne gëmul giiñ naa ci yàlla ne gëmul géej na ci yalla ne gëmul ñu ne ko kan la mu ne ki nga xamne ay dëkkandoom fu ñu seen xel du dal ci aw ayam moy fu ñu toll rek ñi ngi tu ay wala di sentu lor wu joge ci moom wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah, qal man la ya'manu jaruhu bawa'iqa kon doon nituk jàmm mooy tax nit ki nekk ab jullit bu ak jullitam mat loolu nag sunu sëriñ di sunu royukaay al cheikh ahmad bamba xaadimu rasul da cee nekkoon royukaay bu fés ci doon nituk jàmm di sàkku jàmm di ko sàkkul boppam di ko sàkkul nit ñëpp waxuma nit ñi rek sax waaye di ko sàkkul bindeef yépp ku ne xam na digganteem ak tubaab bi li ñu ko teg ñoom ci ay lor te am na jamono yu bari am na ñu taxawoon ci wetam bu joxe woon ndigal ci jëflanteeg tubaab bi ñu jëflanteeg moom waaye amul benn yoon bu mu bëgg doxee moom lu dul jàmm daana wax ne bokk na ci liy tax a mucc nit ki di bañ a tooñ di bañ a fayu itam di bañ tooñ te buñ ko tooñee mu bañ a fayu loolu bokk na ci liy jur bañ a tooñ te ko tooñee mu na ci bëgg jàmm ni ñu ko waxee ne nit ki da ko war di wax di ko jëf di ko yéene mooy waxam daa war di jur jàmm ay e jëfam war a jur jàmm yéeneem itam war a doon jàmm am rekk loolu moo taxoon ba ci jëfam moom ku ne xam na ko ci waxam itam ci digal ay digleem ku ne xam na ko waaye ci yéeneem itam mooy ñaan yi mu daan ñaanit da iya iya ci daan ñaan baña kenn bañ koo lor menn mbindeef bañ koo lor waaye yemu ca te muy lu doy waar mooy yëmul ci ñaan mucc moom ci boppam mu mucc ci lor yi ñeneen ñi waaye dafa ñaan itam ñeneen ñi mucc ci loram dafa ñaan itam mel mbindeef bañ a loru ci moom moom ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا ربي أمين maa ngi lay ñaan yow yàlla nga musal ma ci loru bindeef yépp waaye maa ngi lay ñaan itam nga musal bindeef yi ci sama lor kon koo xam ne day àgg sax ci ñaan yàlla mu fegal bindéef yi aw loram moom kook ku ne xam na ne kon du kuy def luy indi lor kon ku ne war naa jànge ci taxawaayam boobu te mu dëppoo ak taxawaay bi feeñoon ci xew-xew bi nga xam ne moo sabu tabaski gi te mooy biñ demee ba ren di des ci yàlla dafa indi leneen lu ñuy rendi lu bokkut ak nit ngir wane sàmm ak ñoŋal ak fonk gu mu fonk bakkan doomu adama jàmm ji nu wax nag bokk na ci li koy yombal li tax mu am li tax mu man a yomb bokk na ci nit ñi di jëflante ci seen diggante cig maandu di jëflante cig maandu maandu mooy lan maandu mooy ku ne lay àqam na ko jot koo xam ne moo war a joxe na jox ku yeyoo dara lu ne na ko ko jox te it bu mu jox kenn lu mu yeyoowul ñaar la yu bokkul mooy ku yeyoo mbir na jot ca la mu yayoo buñ joxit mbir ku ko yeyowut ñaar yooyu bu ñu am lañu door wax ne maandu am na bu fekkee am na ku yeyoo lu mu jotul loolu ñàkk maandu la bu fekkee it am na ku ñu jox lu mu yeyowul ba tey maandu la kon maandu bokk na ci lii indi jam ndax bu fekkee ku nekk mi ngi jot la mu yeyoo lay àqam bu boobaa jàmm dana yomb xëy na ñàkk jàmm bokk na ci li koy waral nit dem ba yëg ne dañ ko xañ àqam bu boobaa bu ak dalam aku matam àggul fenn fi rek dana mën a doxe aw doxin wu bokkut ak wuy jur jàmm waaye kon bu maandoo amee danañ dimbali nit ki ba doxinu jàmmam mën a gën a yomb kon maandu lu bokk na ci li nga xam ne dana yombal jàmm am maandu googu wax nañ kiy joxe kiy joxe mooy ku yayoo dara na ca jot bu ñu jox kenn nit lu mu yeyowut waaye kii laaj itam bokk na ci maandu ci moom moom it muy laaj muy laaj lu mu yeyoo di laaj lu mu yeyoo mooy kuy laaj lu mu yeyoowut moom itam doxut doxin wu yombal jàmm ndax kami laaj lu mu yeyoowut moom it bu amul sago amul ak mat amut ak dal mën naa dox doxin wu dëppoowut ak doxin wu jur jàmm kon maandu ci kiy joxe ak ci kiy laaj ñoom ñépp lañ koy séentoo bu maandu jàllee nag bokk na ci liy yombal jàmm yit mooy xam nanu ne doomu aadama yi muy nit ñi du ñu man di dëppoo ba faawu ci lépp mooy ñu bokk ñu bokk lu ñu seq rek buñ doonoon ñu néew sax léeg-léeg ñu wuute ci gis yi léeg-léeg ñu wuute ci xalaat léeg-léeg nanu jàppe mbir ya ñu wuute ca sakantuma nak buñu dé ñu bari waye bu boba bokku na ci li jur jam di yombal moy ñom ñepp ñu nangu ne bu wuté amé dañuy dem ca ka wara atté mu atté ndax wuute ta ñak ci dundu gi ta yalla dogal na it def na ci xelum nit ba fum fum tollu dana wut tëraliin woowu bu wutee amee ca la ñuy attewoo moo xam tëraliin bu yàlla wàcce la nga xam ne yàlla ko wàcceel boppam bu nit bu ko ay nit nangoo ba cay attewu kon bu wuute amee na dem attewu ca tëraliin woowee waaye bu amee ñooñ xëy na àggaguñ ci nangu atte ba yàlla tëralit yàlla moom bindaale na nit danañ fexe ba wut aw yoon wu ñuy atte donte ci seen xel lañ ko tëral sax waaye lañu bokku tëral kon ne moom lañuy ñuy attewoo rek nañ ca attewoo ndax bu fekkee wuute am na ci xalaat ci gisiin kenn amul doole ju mën a note moroom ja ne ko li ma wax mooy li war a nekk waaye nag ginnaaw bokk nañu dëppoo ci tëral aw yoon woowu bu wuute amee moo ko war lijjanti kon liy jur jàmm mooy saabu bu wuute amee rek ñu ànd te lañu bokkoon tëral ñu dem ca loola mu lijjanti ko bu ko lijjantee itam nag ku ci nekk nangu la loola wax ndax munta ñàkk benn am ñuy lijjan am am tëraliin yu ñuy lijjante bu wute amee bu amut kon fajal sa bopp moo fi nekk li ñuy wax naan moo ne ca gott ba muy rabi àll yi li dox seen diggante te mooy ku ëpp doole rek ku ëpp doole rek mooy am dëgg ku ëpp doole rek mooy am dëgg bu fekkee amut lu ñuy àttewoo lu ñëpp bokk nangu loolu rek mooy am mooy ku ëpp doole rek la bëgg-bëggam di sotti te loolu dëppoowut ak li yàlla bëgg ci nit nit yàlla weesale ne ko muy tëral ay mbiram ci loolu ci ku ëpp doole rek la bëgg mooy sotti waaye nit daa war a àgg ci am lu jàpp na mooy yoon mooy yoon ki am doole ak ku new doole yépp yam ca ba saa bu wuutee amee ñu mën a dellu ca lool wala ñoo dellu ca loolu sax mën nañoo waxtaan war nañoo waxtaan war nañoo waxtaan ci seen biir ngir jéem a déggoo bu ñu waxtaanee te déggoowuñ nag boobaa la la fa àtte di door a sës bu àtte sësee nag liy indi jàmm mooy ñëpp bokk dem àttewu fañ war a àttewa te àtte ba itam lu mu wax ñu ànd ci ànd ci mooy jur jàmm donte sax donte sax japp nga ne yow ndax sa xalaat la rek ginaaw bi ngeen atté wogut jàppoon nga ne ya nek ci deug moy sa xalaat nga japp ne mo gëna juk kon man na am bu ñu itam du tay nga japp loola ba légui waye itam du wërta loola wërta tax nga ñak and ci atté bi ndax ñak and gi mom li jur rek moy doole rek mo fi sa sub boba ben ñu bokku di atté wo ci menn mbir mënu depo wala doole sës fi te doole moom xamees na ne doonut lu gën ci biir ay nit ñu koy dijjante seen mbir kon loolu lu jara jara bay xel la te luñ mën a jànge la ci xew-xew bi nga xam ne moo nekkoon li waral tabaski kon daal ay bind ngi nii yooyu bu tabaski dikkee buñ defee bu nu defee li nu ci yàlla digal te mooy julli gi ak rendi gi ngir yàlla it waras na ca jànge bindu yu melni moy wolu yalla ak nangul ko te lolu moy li sunu ibrahim def dom jadi ismaeil def ko ndey ismaeil di hajar def ko moom itam ba ñom ñatt ñep ñu atto ñu attan ñu naron ñu naron sotal digalul rendi ren waye yalla limu indi leneen lu ñu rend lu dul nit da cee wane fonk gu mu fonk bakkanu doomu adama kon nit ñi itam war nañu fonk doomu adama ci boppam ba lépp lu koy lor ñu di ko moytu te loolu li koy jur nag mooy ñu fexe ba suñuy wax ak suñuy jëf ak suñuy yéene doon lu dëppoo ak jàmm mbokk yi euh, lii moom mooy li na bëggoon a waxtaane tey ci fani tabaski gi noo ngi ndokkeelaat ñëpp tey ñaan yàlla delloosi ko ni ko waxoon ci tàmbali bi rek ay yooni yooni yoon ñu di ko fekkee di ko fekkee ci ak wér ak tal yàlla defal nu mucc ak xéewal tey ak ëllëg wasalaamu ud'u ila sabili rabb ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن